salaamaaleykum man la Boubacar Diallo doon membre ci collectif des concessionnaires di nettoiement ma ñëwoon rek doon def benn vidéo bu gàtt pour waxtaan ak askan wi par rapport ak ci lii ñu jëm muy bésub tabaski bi parce que xam nañ ne en général fête la boo xamante ne si liñ ci produir ci mbalit dafay bari léegi nag gis nañ ne at bu jot euh, ICG Sonaged dafay am dispositif boo xam ne daf koy teg pour jàppale population bi dispositif boobu nag saa yu koy teg daf koy def en partenariat ak les concessionnaires du nettoiement maanaam ñun privé yi nga xam ne ñoo investir ci secteur bi di yebal suñu ay oto donc nag ñuy wax population yi incha allah comme ni mu amee daaw daawaati géej ren aussi noonu lañ ko fas yéene defee dina am collecte porta porte habituelle bi nga xam ne moom mooy faral di am tous les jours en plus de loolu am na beneen dispositif spécial boo xam ne euh, Sonaget ICG en partenariat ak les concessionnaires dinañ ko mettre aussi en œuvre c'est-à-dire euh, dina am ay yeneen points yoo xam ne en plus des point de regroupement normalisés dinañ choisir ay points yoo xam ne aussi dinañ fa teg ay caisse polybène pour que yombalal population yi mbirum mbalit bi parce que cet moom dafa am lu ama dafa doon lu ama am solo donc nag may invité rek population yi ñu def effort bu fekkee oto bi rëcc na leen ñu def effort minimum jëm ci PRN yi pour déposer fa seen mbalit à defo wala ñu dem yóbbu ko ci kees yi mag yi nga xam ne dinañ ko teg un peu partout fii à Dakar ak ci biir réew mi yëpp loolu nag moom je pense que liggéey la boo xamante ni si ñun ñëpp ñoo ko war a ànd def muy Sonaged muy ñun les concessionnaires di nettoiement ak les populations pour que au lendemain de la tabaski du ñu gisati benn mbalit si suñu ay cité euh, ma ne woon nag euh, naa def vidéo bi rek pour ñaax sama bopp ñaax aussi les populations parce que incha allahu rabbi comme ni ma leen ko waxee Sonaged ICG moom incha allah dina présent ak ay équipe si seeni wet aussi ñun concessionnaire yi nga xam ne ñun ñoo moom camion yi dinañ présent aussi près de l'ICG donc ñuy ñaan aussi population yi ñu def effort minimum bi pour que suñu dëkk bi ñu mun koo seetal waa dañuy faral di seetlu aussi ne bës yu mel ni bësub tabaski am na ñoo xam ne bu ñu feesee seen xar à défaut ñuy yóbbu yenn kii ci kees yi dañ koy jël di ko def ci rigol yi te loolu aussi dafay indi day posé waat beneen problème boo xam ne ci wàllu assainissement bi la te gis nañ ne maanaam loolu aussi yëpp dafay doon ay facteurs yoo xam ne day favoriser mbënd mi léegi nag ñuy ñaax suñu bopp di ñaax ñëpp ne daal SONAGED ICG ànd ak euh, les concessionnaires di nettoiement dinañ taxaw population yi comme ni mu waree parce que dinañ xam ne actuellement nii sax collect bi du yomb par rapport si yenn lieux yi mooy maanaam marché yi ak euh, fi nga xamante ni si daral yi fa la nekk yooyu yëpp incha allahu rabbi à partir de la jour de la tabaski rek euh, bu ci population yi jàppee dina gën a yem parce que dinañ taxawal ay équipes yu koy balayer très rapidement asalaamualeykum wa rahmatullah